était inspecteur du travail euh, kon tey jii sunu collègue confrère yi nekk RTS le combat qu'ils pour retrouver euh, leur droit il est euh, légitime mën nañ ci am dëgg bu ñu demee ci yoon mais li ma li ah, li ma si la mën a wax daal moo di bu dee lan li ni liñ leen liñ leen xaj fi mu nekk mhm. jox nañ leen ko ñetti yoon yoon dafa ne loolu dafay doon pratique day doon coutume te pratique ak coutume day suuxat yoon. Mhm. maanaam source de droit la. waaw bu dee lu répété. Mhm. avantage boo répété ñetti yoon si sa sa coobare bopp day doon lu mel ni euh, loo xam ne assemblée nationale moo ko wote beneen bi mooy euh, accord d'entreprise accord d'établissement dès lors que njaatiga bi fi nekkoon moo ko waxtaan ak liggéeykat yi amoo sañ-sañ yoon mayu la sañ-sañ ko di ko aj li nga man mooy ko dénoncé mhm. ba pare nag négocier mais boo dénoncé négocier waxul daf koy suspendre déedéet mhm. day continuer ba keroog ngeen di juboo loolu la yoon wax d'accord te ma dolli si ne euh, pouvoir public dañuy dañuy dañuy encourager accord d'établissement ak entreprise parce que noonu la droit social euh, tëraloo mhm. dañ ne liggéeykat yeeg njaatige yi may nañ leen ngeen di waxtaan di juboo ay sart yoo xam ne dangeen koy nangoo doxal tey du yoon ba nekk assemblée ba gouvernement ay décret ñoo koy def. ñoo koy def loolu nag comme dañ koy encourager dama yaakaar ni. tey kaay bu nekk ak njiite bu nekk ah. da nga ko war a def. Ah.